à mon avis yaakaar naa ñooñu war a yor seen salaire. Mhm. Mm. ayca ba <laughs> man de Babacar man wax dëgg yàlla ay retard na ma def sax ndax moom gis daan nañ ko gis mais nag ñu mu daan dalal ñu ci bëri ci wàllum Macky Sall lañ nekk ndax bu fekkee daan ngeen suivre ay émission am mm-hmm. <laughs> euh, fee ci RFM lu ci bëri lu daan dalal da daan dalal ñi nga xamante ne gars yi Macky Sall yi lañ ñu ci bëri ñoom lañ daan dalal comme kay Sénégal léegi dañoo am ay appartenance politique yoo xamante ni ba ci télé yi boo nekkee ci Ousmane Sonko duñ la invité wala nga nekk ci Macky Sall yow la ñuy invité boo nekkee ci Ousmane Sonko kenn du la invité xam nga loolu nag dañoo dem ba politique bi ñu dugal ko ba ci biir télé yi ba journaliste yi nga xamante ne ñoom ñooy def seen choix a invité ñoom tamit ñu dem ba dugal politique invitation yi sax gis nañ ciy dugal politique bi am na ñoo xamante ne tey jii nii bu ñu leen bëgg a invité ci plateau Allô Sénégal dañuy lànk bañ ndax suñu couleur yi nga xam ne moo ñu tooñ te wax dëgg yàlla bañ koy def xamuñu woon ne sax Pastef dina exister ñu tooñ ñu lool ci suñu couleur yi léegi nag moom Babacar Fall mi moom it amaana li tax muy wax waa waa Pastef dañoo kontaan ñàkk payoor gi ñu leen ñàkk pay actuellement damaa jàpp ni ci ci politique la ko tënk maanaam ci politique la ko tënk waaye nag damaa jàpp ni waxul ak waa Pastef waa télé ba koy fay ci boppam la bëgg a waxal te wa te te mënu leen a wax ak ñoom mu koy waxee indirectement ndax damaa jàpp ni yow bañ lay jël waa Pastef xamuñu la yow bañ lay bañ lay naan ñaata lañ lay fay waa Pastef xamuñu la yow ba ngay lim di liggéey foofu xamoo woon ni sax dinga nga xam ñu tudd waa Pastef léegi yow fayuñu la nga ne waa Pastef waa Pastef kontaan nañ ci waaye yéen lan moo tax ñu bëgg a yeb waa Pastef noonu ak waa Pastef ñu mer caag ñu kontaan ca yow lan la la wàññi ndax yow waa Pastef du yow yaa leen yëgal ni fayuñu leen yéen waa TFM mën nag damaa jàpp ni li nit ñi jàpp du loolu la nga bëgg a wax mooy yéen ñi nga xam ne yéen a yor yéen a war a yor salaire yi fay leen ñu dañoo sonn dañoo tay dañoo dam man jàpp naa ne loolu nga bëgg a wax mais du waa Pastef dañoo kontaan parce que lool nekkul woon bi bi xam nga ba fa voilà indirectement lay wax kon fay lay wax li mu bëgg a wax indirectement mais jàpp naa ne waxula ak waa Pastef kon circuit yooyu mu gudd na kat mais loolu la Pastef fay leen ma mais foofu le message bi di jaar pour gën a gaaw fa lay jaar il faut moom mu xamal waa askan bi nii waa TFM fay ñu leen léegi nag mënu koo wax directeur am mënu koo wax directeur de programme am mënu koo wax ña nekk ci télé bi am mais foog mu jaaree ko ci waa Pastef ndax waa Pastef ñoo fi nekk bu fi Macky Sall nekkoon danaan ma Macky Sall kontaan na ci de hmm. parce que ñii amaana dañuy bëgg a sonn ndax am na benn jour boo xam ne Pape Cheikh Diallo doon na ko wax daan bu ñu yëgoon ni bu ñëpp di way naan Sonko moo jomaay jomaay mooy Sonko ñu way ndax fi ñu toll nii dañ ñoo xaajal suñuy salaire fi ñu toll nii cin li fépp lay baxandoowee am na ci ñoo xam ne maa ngi la ko doon wax tendre naa leen samay micro ñu ne 7 mois fayeekuwuñu lu tax fayeekuwuñu parce que ñoom gouvernement Macky Sall moo fi bàyyi lii yëpp ay dérive am la ay séklu Macky Sall yu mu fi bàyyi la koppar gu bëri gi ñu rawale la li waroon a dem ci kees yi li ñu waroon a fayee fonctionnaire yi ñu di ko tëf lekk lan la ñuy fayee yéen it kenn rawu leen ngeen war a fay impôt impôt bi war a dugg ci dëkk bii fayoo leen impôt ñu bloqué seeni compte léegi fayee ñu leen yéen ne waa Pastef la waa Pastef lu ñu def waa Pastef dañu leen fay leen fay leen impôt sax du waa Pastef ndax waa moom moomu ñu impo gi sénégalais yi ñoo moom impo yi impo gi ngeen war a fay 2 milliards yi sénégalais yi ñoo ko moom taux de chômage bi ci lañ ko war a réduire yu baree bëree bëri yu ñu war a defar Sénégal yéen boo leen fayee deux milliards 2 milliards 2 milliards bu dajee nekk benn 10 milliards am na lu bëri lu mu war a mën a defar donc da war a wax seen patron mu fay impôt balaa balaa ngeen wax wàllum salaire parce que salaire yéen yéen koy lijjanti ci seen biir boîte bu nekk salaire am moom moo koy lijjanti ci seen biir mais li ngeen war a def mooy fay impôt te yaa ngi tooñ nag Ababacar sa tur bu sell bii yaa ngi tooñ waa Pastef seen yoon nekku ci waa Pastef defaluñu leen dara le président Diomaye dañu leen nañ leen fay impôt Macky Sall dafa ñëwoon ni baal na leen impôt yi ndax leen amul benn lijaasa bu mu leen bàyyil benn këyit bu mu xaatim leen ko fi ni nañ leen impôt lu dul baal naa leen impôt nii ci ay wax ñii ñëw ni leen da ngeen war a fay impôt mais nag fay leen impôt fay leen impôt jàmbur yi salaire yi fépp lay tardé de fépp lay tarde <laughs> c'est la triste réalité salaire yi fépp lay tardé donc nañu muñu rek te bés xol yi te xam ne fi ñu toll tembe lii metti ñun ñëpp ñoo koy bokkandoo di ko dund mu metti torop day metti ci man de mu um xayri mii day metti ci moom day metti ci xalil day metti ci yéen tamit daa njëkk a yuuxu rek dafay njëkk a yuuxu rek mm-hmm. mais salaire yi fépp lay méttee fonctionnaire yi may déglu xam nañ lu may wax dafay tardé tellement que ni duñu sax comprendre père de famille mère de famille ñi ngi ñi ngi dee. Mhm. ah mais loolu yëpp après dafay jeex li koy jeexal nag mooy bokk na ci ngeen fay impôt ah. sonn nañ torop mais daal li ma la mën a wax mooy yaa ngi tooñ waa Pastef defuñu la dara bu fekkee da nga bëgg a wax sa DG mu fay salaire yi mhm. nee ko DG ñun sonn nañ fayal suñu salaire yi mais bu ko jaarale ci waa Pastef parce que li ngay def nii yaa ngi accuser nit ki yaa ngi tooñ nit ki yaa ngi ni moom dafa kontaan ci loolu te amaana sax yaa ko ko yëgal nañu bàyyi wax ju ñaaw ji te concentré wu ci liggéey journaliste du prendre parti wala booy prendre parti na nga na nga dëgg na nga dëgg bàyyi sa caaxaan nii nga nekk te nga dem liggéey bu fekkee dangaa ngaa bëgg bàyyi nga bàyyi xam nga régime bi lan la feeñal lu mu feeñal dafa am les journalistes au pouvoir am les journalistes dans l'opposition xam nga bu njëkk sax gars dañ doon masqué wu moo waral ba ci yenn homme politique yi ci ñoom lay njëkkee ku ci mel ni Bougane ngay dani ña nga doon ña nga ko doon gis ci opposition bi mhm. ñu jékki-jékki gis ko mu ne mel ni mes toog benn boor ñu di défendre beneen cause mhm. euh, ku ci mel ni Barthélémy Dias ñu gis ko ci Ousmane Sonko jékki-jékki rocceeku daal di dem ca Macky ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci seen biir tey jii dañoo wane seen vrai visage man damay ragal ne bu yàggee loolu mooy am ak lu ma la bëgg bëgg bëgg bëgg bu ma bu la gisee ngay def lu dul yoon dinaa la yow mi nekkoo ci dëgg mhm. waaye la fekk nag ngay dem ba toog ci say plateau télévisé mhm. di def yenn yi di jëfee ñenn ñi mhm. da yàq sa crédibilité man dama di je me dis que ne ñenn ñi xanaa li ñu jot a jàng da leen a réer moo oh, ma jaaxal ah parce que oh, loolu loolu moo fi dal ma mu ngi nii mu ngi nii mu ngi nii voilà euh, ziar di Sidath Thioune gis nga ma ñuqu faal man ma ñuqu faal laa lay wooyee ndax euh, li nga naan dañ da nga ni dégg suñu kontóoru xool gi faran ko lay suñuy xeef man xaw ma bañ gi nga bañ Pastef laa xamul foo ko teg wala xaw ma bañ bi nga bañ président Ousmane Sonko laa xamul fan nga ko teg euh, diviser pour mieux régner loolu nga fi nekkee depuis très longtemps te it euh, di la wax nii laisse-moi ton pisser ndax si viendra bu fekkee da nga yaakaar ni fa nga nekk foofu saaboo boo xëyee foofu ngay toogee dafa am seen règlement de compte saa boo xëyee chargé état bi wax la la saf ak la la neex xam nga lii du mbiru chroniqueur ndax kii xëy di chargé premier ministre de la république du Sénégal wax sa soxoraay wax sa mbonaay te bu ñuy wax sa mbon ak sa bokk bon ak sa bon bu noppi yow yaa ko def ndax yaa ko fi wane. yaa wone sa soxor yaa wane sa bon yaa wane sénégalais yi fu nga toll moo tax nii rek la mën a demee en tout yenn yi moom neexul ba neexul waaye ah mais Youssou Ndour bii daf ci war a wax parce que ñun moom ñii rajo bi wala nu moom groupe bi ba saa bu nu xëyee seen règlement de compte wala di xool ay presse yoo xamante ne que ñoom dañoo tëj seeni organes yooyu ñu leen di indi di leen invité pour nu fay casser seeni droit te yow nga am loola doy sëkk. ñi toog suturoolu war a wax te waxunu bëri neen kon fi yow yaa fi génn weer weer groupe Futurs Médias mhm. yow mun ne wax ne yoole man nga et pourtant de invité ma fi à maintes reprises di ma laaj ndax est-ce que ni lay fay ma ne waaw ni ngi may fay ngir suturaal sama groupe waaye yow yaay koo xamante ni ko amul benn sutura lu xew ci biir kër gi yaa koy lijjant yaay xool liy jafe-jafe kër gi yaa toog di ko wax te lii nag c'est des choses yoo xamante ni que ñun ñee ngi seetaan kër gi dafa mel ni responsable yi ñoom mun noo jël ci yenn décision yi parce que lii c'est lii li lii lii c'est pas du tout normal un employé du groupe boo xamante ne que saa boo xëyee yow si liggéey mooy chargé état chargé état wax la la saf wax say waxi réewande wax say wax yoo xamante ne que impoli de l'impolitesse rek ngay ngay ngay ngay teg amul leneen ah moom moo ñi moom moo ñit ñi mi ngi noonu. moom moo ñu ñi bàyyi Pastef la ko wax euh, fi ñu toll nii nag daa mel ni euh, TFM fi ñu toll moo raw seetu bu tas de ña ngay ŋàññante ci seen biir kii Sidath Thioune la. amul mm. xëy nga nekkoon ci point bu am li ma sànq rek la yaakaar naa ne loolu la ci daal wax or mm-hmm. déglu ma ko woon sax avant mm-hmm. gis nga ndayasu li ñu xam ne loolu moo fa am mm-hmm. tey li nga xam ne ça devait rester dans groupe léegi nag moom je me ne moom Babacar Fall loolu la def encore yi mhm. euh, mhm. euh, mhm. nga xam ne aussi moo nekk les en famille ça doit rester dans le groupe tey boo ko génnee parce que euh, Sidaat même collègue am la ñoo ñoo bokk benn benn bi donc xëy na moom dafa wax xawi waale sutura ñëpp mooy li may wax sànq donc yow bu fekkee ne salaire dafa retardé na la leer ne euh, presque une vingtaine de personnes ñoom ñëpp seen salaire tardé nañ du yow donc yaa fa nekk mhm. léegi nag nit ki xaw ma ndax sañ wax la wala ñemee wax la wala leen la wala yaa war a waxal ñeneen ñi am na ñoo xam ne li mu wax rek mën war nañoo waaye waaye waxuñu parce am na loo xam ne moom la seet. Mhm. peut seeni salaire mu amee ay retard te mësta am retard mu ngi door a am compréhension dafa war a am foofu. Mhm. li nga wax sànq rek retardu salaire yi lay am. Mhm. tonton Fall na fii naan xanaa da ngeen di ñaxtu. retardu salaire mi bu génnee naa waxaat leneen. Ah, fi mu toll nii kay mm. mbóot yaa ngay commencé sulleeku fee ca TFM nag euh, nag bul xam mm-hmm. Mm-hmm. donc nañu fay salaire yi waaye tamit nañu bàyyi xelu ñaan gi euh, am na ci ñoo xamante ne dañu doon wax di ni ni journaliste yi ci boppam ñoom ñooy opposant yi wax nañ dëgg journaliste yi ci boppam ñoom ñoo taxaw taxawaayu opposant mm-hmm. lii yëpp ñu bëgg ko indil seen bopp ndax lan benn nit ndax lan bañ benn nit mais est-ce que duñu jéem a xool nan lañuy def ñu apaiser li nekk ci seen xol yi te xam ne ñii la yàlla jox réew mi te ñoom ñu ngi nekk di ko di yow demagul sax un an amaguñu un de ñu fàttali amaguñu un an. Mm-hmm. te fi toll war nañ fee def cinq ans nga bëgg a taxaw temb pour opposer wu nga bëgg a taxaw temb pour di critiquer chaque jour xam nga sànq nee naa la tout le temps dafay dafay invité ñi nga xamante ne ci Macky Sall lañ far mm-hmm. tout le temps ci opposition bi lay jël di invité tout le temps mm-hmm. mosoo gis koo xamante ne Pastef la bokk ma gis ko ci émission moom Babacar Fall mosuma ko gis tout le temps rakk Macky mm-hmm. mag Macky Sall wala ci gouvernement Macky Sall donc tout le temps mi ngi bëgg tamit di charger comme li mu wax le gouvernement di charger le premier ministre mais moom comme kay moom nee na fësal bien vrai que ni booy défendre taxawal nga défendre dëgg nga ñi nga jàpp ni loolu mooy dëgg taxawal nga défendre ko mais kantaan nag di charger la premier ministre mënoo ci moom dara parce que ñii fi taxaw mhm. gën la nekk ay opposant ñu ngi nii tey gis nañu élection législative yi ni askan bi taxawee mhm. donc nañu nañu jënd glace mhm. nañu apaiser seen xol yi nañu génnee iñaante en gi ñu àndal di ko doxee nañ ko génnee gis nga lii nit dina jekki saay rey fi nit ñu ni kii lan moo tax mu rey ko soxor day def loolu iñaan day def loolu nga bañ nit ki rek singali ko bañ ko te defu la dara. Mm-hmm. lan la ko Ousmane ko def lan la ko waa Pastef def. Ah, lan la ko la président Diomaye def. waaye waa TFM lan la leen nguur gi def fay leen impôt ngeen mm-hmm. génn di jël seeni arme chargé ko ba mu fees di tiire di wax lu leen neex ci màggalu Tuubaa gi gis nga li ñu def. jël vidéo Ousmane ko bu yàgg dem teg ko ci seen ay ci seen ay journal mm-hmm. ñu wax ñu ni dañoo juum mais xanaa journaliste bi bi di présenté moom mën na ci bañ xam dara mais régisseur bi kan moo koy commandé. c'est le journaliste mooy teg programme am yëpp yónnee ko régisseur bi régisseur bi di ko indil par benn benn benn kon donc loolu dafa fekkoon ne dañ ko programmer pour bëgg a yàq mais nag yow mënuñoo yàq li nekk ci xelu askan bi li xew ci élection législative yi rek war na leen a yee bu baax a baax a baax a baax Youssou Ndour ci élection yi bañ ne ko kan nga àndal daf ni dafa neutre mais neutralité ci élection neutre contre qui mm-hmm. yow da nga neutre faraloo kenn xam nañuy assumer seen ay responsabilité te affaire de gouvernement bi ñu génn ci seen télé bii parce que dañoo am influence quand même parce am nañu ay abonné ci seen yu YouTube te nit ñi ñu ngi leen di seetaan li ñu bëgg mooy influencer askan bi dëpp seen xel mënuñu ko nañu dañuy sonn rek mënuñu ko nañuy def yëfu kilifa di doxalin journaliste yi doxalee doxalinu journaliste mm-hmm. chroniqueurs yi doxalee doxalinu chroniqueur Mm-hmm. la ñu bàyyi yàq geeg salfaañe geeg soxor gi mm-hmm. moom xàmmee nañ ko bu baax c'est pas une première day doog a feeñ waxam ji mais tout le temps mm-hmm. gars yi Macky Sall yi lay invité ñuy wax du n'importe quoi di wax di charger le premier ministre di charger le président Diomaye il faut que ñu arrêté seen genre affaire yi ndax lan fay leen impôt kese yéen yàlla yéen yéen waa TFM yéen a daan recruter élément seen TV élément Walfadjri élément feneen ak feneen di ah, leen fay seen nga ñëw liggéey ak ñeen tey nag boo leen demee ba am problème salaire kon ngeen xam ne nag nguuru Macky Sall gii jàppoon na ci seen ci seen télé bi kon ngeen xam ne Macky Sall a yoroon seen télé dem ba am problème salaire yéen ngeen xam ne da daan toog seen télé bi maye 10 millions maye 5 millions maye 500 000 maye 100 000 francs tey ngeen am problème fay seen ay employé seen parce que Macky Sall jàppoon na ci seen bii kon ngeen xam ne daanoo leen fay impôt fay leen impôt fay leen impôt rek ngeen ngeen di yàq fay leen impôt ngeen ngeen di taakale ah mais nag metti na de fi toll nii. ah yéeme na man daal. en bi nañ ko arrêté. pourtant nag nit xëy na du seetaan beneen télé bu dul RFM wala te bu du du déglu rajo bu dul RFM du seetaan lu dul TFM boo xaaroon ci xolam nga fekk fa Ousmane Sonko mu fees fa dell. maa ah, parce que ku nekk fa nga jàpp ne man télé bi moom mooy dundal am na ci parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ dañuy choisir ne fii la ñu seetaan fii nga xamante ji parce que du question que Babacar Fall fii lay liggéeyee farut ak waa Pastef du ma liggéey du ma seetaan TFM et pourtant ñu nga fa am na ñoo xamante ji saa yoo leen dégloo ñu wax la xam-xam bu leer nañ te ñu nga ca biir télé ba moo tax ma ne la am na ñoo xamante ne bu ñu xëyee dañuy jàpp fii ñee jàpp fee parce que gëm nañu ne su may seetaan kii moom laa bëgg a am satisfaction bi nga bëgg am ci li nga xamante ne moo di information bi waaye dafa am loo xamante ne tey wax nga ko sànq muy ci wàllum journaliste yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a doon ay opposant wala ñoom ñoo bëgg a téye li nga xamante ne tey jii les opposants politiques dañ ko daal di échec euh, dañoo dañ cee échoué loolu nag dafa am loo xamante ne fi ñu toll li mën a dox mooy que ne nga nekk ci dëgg parce que dañoo nekk ci vague de changement li nekk di xew dëgg la soit que dëgg ji nag da nga ciy nekk di ci wax ci loo xamante ji moom moo am boo parce que nangu laan moo nangu lan mooy la réalité li nga xam ne tey jii moom moom la nekk di ñuy dund li ñuy dund mooy rupture bi fi am changement bi fi am alternative bi fi am du ñu xool loo xamante ne tey jii jàpp nañ ne loolu xewagul wala ñuy bëgg a projeté ci loo xamante ne ñëwagul ñu bëgg koo def ci li nga xamante ne moom mooy suñu plateau bu fekkee noonu lañ ko bëgg a doxalee nag dana am loo xamante ne chaque fois du mën a demee noonu. ba pare yaa ngi dégg mm-hmm. am na wax bu ama am solo bu mu wax moom Sidaat. Mm-hmm. daf ne ana autorité yi ana responsable télé yi. Mm-hmm. ana Youssou Ndour ana Birane Ndour ana Boubacar. lu tax intervenir wuñ ci lu tax waxuñu ci lii lu tax arrêté wuñu ko mhm. c'est parce que kon dañu ñoom tamit dañu ànd ci li Babacar wax mhm. dañuy ànd ak ci tàkkale bi ñuy tàkkale euh, gouvernement bi moo tax boobu ba léegi noppi nañ mhm. bu ñu déggoon leneen loo xamante ne tey ji arrangé wul seen télé génn nañ bu yàgg wax mais ana ñu ñoom lan moo tax waxuñu lan moo tax xanaa kër gi amul kilifa ba employé yi ñooy jug di wax xanaa kër ga amul kilifa booy seetlu ku mel ni Babacar Fall li muy wax sam dafa bëri te saa yu genre coow li fan la toj nag moom moom da ciy wax gis nañ ko ci le cas de Barthélémy Dias waxoon na ko gis nañ ko ci ba Macky Sall génnee am li mu waxoon ci presse bi gis nañ ko la mu gënaatoon wax à chaque fois moom mooy wax lan mooy tax mu doon moom moo ëpp fit wala moom moo war a wax wala dañ ko jox privilège privilège wax c'est dafa am ñu nekk ci ginnaawam loolu lañ war a mën a xool nag ki ngay xamante ne saa su ne da nga koy bàyyi